tey waxtaan wi jëm ci rek ci usmaan Sonko ak grève de la fin bi ak fi mu toll ak ñi naan Ousmane Sonko dafa wér ci xeex bi ñu bari jàppoon loolu ba ay soxnaam génn yëkkati seen kàddu ñu dégg wala gis ay bun fokkin ak ay piccum ramatu nekk ci internet bi ñoo ñu xam ne buñ doon wax baatu nawle ci réew mi ay soxnaay Sonko defuñu leen nawle ndaxte boo xoolee jëmmi soxnaay Sonko yi rekk ak seeni muuraay ak ni ñu mel ñooñu di leen dingat ci internet bi ne ay jigéen lañ yooyu te duma tudd seen tur ñooñu rekk boo leen xoolee teg soxnaay Ousmane Sonko yi nga xam ne duñ benn Sénégal kay mooy réew moo xam ne dafa bëtiku rek ba ku ne sañ ngaa jël sa làmmiñ wax lu la neex teg ci ki teg ko ci ki la neex te dara du la ci fekk bu dee da nga far boor bële bu la neexee nga xas ku ne wax ci ku ne lu la neex lu tax tey jii waxtaan wi ñuy njëkkee soxnaay Ousmane Sonko yi ak seen taxawaay wolof dafa ne lu yëngu lu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole te tubaab dafa ne c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les meilleurs ñi da leen war a gàcce ngalaamal ndaxte nag waxtu nu génnee mooy waxtu Ousmane Sonko duggee ci loxoy nguur gi nekk ci prison waxtu Ousmane Sonko woppee nekk ca l'hôpital waxtu woowu ñu génn mooy waxtu ñu war a génn ndaxte bu doon ni Ousmane Sonko ba muy mitin di toj dëkk bi di ànd ak waa Yewwi Askan Wi ñoom Barthélémy Dias ak Khalifa nekk ci ginnaawam di ko tàcc usmaan dem élection gañeel leen ko ñii mu def leen maire ñii mu def leen député boobu kenn gisul ay soxnaam danoo toog ca kër ga di sëy seenug sëy nekk ci lan war a ne dugg ñu ci politique gu Ousmane Sonko. boobu jotoon ci Ousmane Sonko sax jafe woon na leen maanaam bi Ousmane Sonko di doon usmaan Sonko sénégalais yëpp ñëpp soxla ko ñoom dañ ko bàyyi ak sénégalais yi ñi ñoo gore ñoom dañ ko bàyyi ak sénégalais yi waaye bi ñenn ci sénégalais yi wanee ginnaaw Ousmane Sonko ñoom ñu ñëw taxaw ñii ñoo gore kon loolu ku leen ci tàccuwul parce que bu doon ni ba mu neexee la ñuy xëccoog sénégalais yi Ousmane Sonko génn di ci wax mais danoo toog fa ñu war a toog muuru seen ku muuraay di sëy seen ku sëy nekk ci lan nara ne ba méttee ñu génn seen génn bi nag li ko waral mooy bu doon ni ñi war a def yépp def nañ lan war a def seen génn bi du ko soxla mais buñ gisee ku mel ne Barthélemy Dias xam ne fu fu mës a deewee rek Sonko dee fa buñ gisee ku mel ne xalifa gis keneen ak keneen ñoo ñooñu kenn déggatu leen ci mbiru Ousmane Sonko wala buñ ciy wax wax la joo xam ne dañ koy cof rek teg ko fee ñu ne ana xale yi ci mbedd mi doon xeexal Ousmane sonk ñu ne xale yooyu jege na ñaari junni ñi ngi ci kaso bi gàcce ngaalaama xale yooyu li ñu waroon def def nañ ko ba xeex ba jotee xeex nan ba bañ jotee bañ nan ñu bari nag ñi naan nan wàcc mbedd mi mais kan mooy wàcc ci mbedd mi stratégie boobu doxatul mooy ñi doon wàcc ci mbedd mi yëpp tëj na leen ñin mënul tëj am na lu ñu teg seen kaw ci wàllug yoon kon stratégie war na mën a soppeeku ñu ne ana kilifa yi diine yi ci réew mi kenn déggul lañ ci woon ñu ne ana société civile bi ñenn ñoo ciy wax ñu ne ana intellectuel yi gisuñu leen usmaan Sonko moom ca l'hôpital mara de taali ko lanoon daloon njabootam rek ñooy ñàkk ñoom ñooy doon njirim doon baayo ndax réew mi xam na ni muy doxee bu neexee mun nga ko bokk ak ñëpp waaye bu naqadee ñu ber la jamono ji ko ñenn ñi beree ñenn ñi di ko jëw jëw Ousmane Sonko mënut a weesu mu dugg prison tëdd l'hôpital te rajo bu ne nga toog fa ku mel ne maître El Hadj ñu ràccal la nga toog di wax lu ne nga maanaam day fenn assassin la lépp loo xamul Ousmane Sonko ci lu bon rek yow wax nga ko ci jamono boo xam ne dana waa ji mi ngi réanimation xanaa booy dëggate nit ki dëggate nit ki ba mu toll ci diggante dund ak dee nga war ko ñaanal sax mu dund wala boo ko yéenee dee sax nga rafet ci. ndax njaal ma ëllëg yàlla na yéex ngay gis ku mel ne Babacar Gaye bokkoon PDS kenn xamatul ci lu mu ne moom politique ci Facebook bi ak ki mu doon ak nin ko xamee ci élégance mu mën a ñëw yëkkati bind yenn bind yi teg ko ci koo xam ne dafa nekk ci grève de la fin ne nan xaar ñeent fukki fan bu dee grève bi dëgg la bu ñu eggee ci ñeenti fukki am ñëpp dina xam ne grève bi la am déet la muy junj ñëpp xam nañ ko ndaxte xiifal bu eggee ci ñeent fukki fan lu ne mën na cee xew dem ba sax mandargalaa koo xam ne dafa xiif ba loof ba lu ne mën ko ci fekk ñu gis ay nit ñoo xam ne tey jii ba ne Ousmane Sonko dafa grève de la faim ñoom ñu toog ci internet bi toog ak presse bi ci ministre de la justice naan dékki na wala mos na lii wala mos na lee loolu wolof naan ku la safaan loo yooyu mu xeeb loo feebar mu xeeb Ousmane ko jógee pavillon jugee prison dem principal loolu rek doy na pour ñu xam ne kii dafa feebar mais teewul lan ka daan wax ci lu bon ba tey ji ñi ngi ko koy wax lan ka daan def ba tey ji ñi ngi ko koy def kon tey ji bu ay soxnaam jugee di ci wax ak nguur gi ñu ko séqal nguur goo xam ne yamuñu rek ci jiñ la viol biñ demee ba mënatuñ jàpp ci viole danoo ñëw dugg ak yow ci corruption de la jeunesse dugal la ci mbirim Mame Mbaye àtte ba daal ñu dóor appel pour grand corps la tey jii ñu jël lépp loo xam ne rek bàkkaar la ci réew mi ci li fi xewoon ci ay fitna ñu jël ko dóor ko ci sa kaw damay expliquer lu tax soxna Sonko yi seen génn bi am solo nguur goo xam ne yow yamuñu rek ci jàpp la tëj waaye barricade nañ la dem nañ ba région bi nga bokk yow di Casamance sax région boobu la tey ji dem fa yombatul da leen a ber yamatul ci sa jëmm waaye sa askan sax mënatul nekk ci jàmm sa parti mënatul nekk ci jàmm ndaxte ñëpp ji kaso ba dem ba ña nekk bitim réew te bokk ci parti bi sax ragal nañ ñibbi ci réew mi ndaxte doonoon jot ne bu nu yegsee ñu jàpp leen waxuma luñ def wala ñu wax waaye takk bracelet sax bàkkaar la maanaam. may ñu dara Ousmane Sonko maanaam ba Ousmane Sonko di dox ak tànkam di dem di dikk ban koy dàq ci impôt domaine ak tey jii ba ñuy toj ay vitre otom ba naan dañ ko pompam déet yooyu yëpp waa ji dund na ko heure boo ne gars yi tey jii la ñuy rëggal rek ñu ne déedéet ñu yóbbu ko prison ñu foog ne dañ koy may mu nekk ci jàmm njabootam di ko yóbbul añ ak reer ñu ne ko déedéet ñu dem ba weesu loolu mu jural ko grève de la faim. grève boobu Ousmane Sonko bu ci eggee maanaam euh, lépp lu mu lépp lu xeex laaj def na ko waaye pexe amatul kon tey jii ay soxnaam bu ñu génnee wax dañoo war a wax parce que ñi ngi ko séqal ñaanuñu leen pour ñu may leen de ndaxte jàpp nañ ni ku ki ku xalif général des mourides di ñaan doo may parce que gis nañ bi ñu fi tëjee Walfadjri gis nañ fi mbiri Karim gis nañ fi mbiri xalifa ni ci sëñ Abdul Aziz si Al Amin doon def ni ci sëñ Sidi Mokhtar daan def ak yeneen kilifa yu nekk ci eglise bi Guy Marius Sagna dugg na ci kaso bi église bi am lu ñu ci doxale woon est-ce que may na leen kurusul kilifa diine yi wegoo leen rusoo leen bàyyiwoo leen xel kooku tey jii du ay soxnaay Sonko lañuy may waaye ñaan gi lu tax mu am solo mooy tiiñal leen ci kanami àddina ba ñëpp xam ne boo wax jotee wax nan loolu moo am solo ci waxi jabari Ousmane Sonko yi maanaam moment bi ñu waxee ak la ñu wax parce que li ñu dund yamuñu ci ci li Ousmane Sonko dund mais ñoom danoo dem ba sax ba nekk ay victime victime ñoom politique mu ñu ànd ak Sonko di campagne ba Sonko di falu ñoom ànduñoo moom falu ña nga nekk seen kër di sëy seenug sëy waaye bu ñu demee ba kenn ñemeetul wax kenn mënatul dem di dëkk ñoom ñu yuuxu pour ñëpp dégg leen te wax jooj ñu wax dafa am solo ndax dafa am ay effet depuis ba jabaru sonk yi waxee ak tey jii mais ci la avocation koy yi dem Nations Unies kalaame nguurug senegal parce que li tubaab naan ce que la femme veut Dieu le parce que ci la yaram yu bari daw ñu bari nag ne léegi wax jot na alerte jot na ginnaaw Nations Unies ci leen gis lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ci ay intellectuel c'est pas n'importe qui duñ ay sénégalais am na ci ay africains mais am na ci ay tubaab metre Brody boo xam ne ci régime bu ci abré victime abré yi ci leen ko xamee woon ñu ne professeur Serigne Diop ñu ne Filmin Sarr ñu ne ay journaliste bu ñu doon lim tey du jeex def pétition. ngir ñu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram waaye beneen bi ci topp mooy lu weesu pétition boobule ñi ngi ñaan ñu delloowaat ko parteem ndaxte nin tasee parteef du yoon te ñooñu du n'importe qui ci kanam dinaa ci dikkaat parce que ni nguur gi génnee di leen tontu ci ngay xam ne seen wax ji am na solo te coup bi dal na génn bi jabari Ousmane Sonko yi génn moo tax waaye Yewwi Askan Wi commencé di jukk les députés de Yewwi gis nañ leen gis nañ conférence de leaders ñoom Habib dem seeti le xalif général des murit bi demee xalif général des Mourides joxe ndox joxe tàndarma nee na dokkoor gi bu dee ca la nekkoon bu dee xiifal gi na ko dakkal bu doon naay Ousmane Sonko nag du ma nangu ku ko ñëgloo naan ko xalif bi yónnee na ak yónneewul lii nii nii pour man bu tàndarma ñëwul sax arrêteel parce que Sénégal daa am ni muy doxee maanaam yóbbante xalifa bi rek ab wax la ab ndigal la. parce que pour man il faut se battre debout xeex di diju baaxu ci kon génn bi soxnay Ousmane Sonko yi génn man foofu laa koy dugal parce que ban génneeg tey jii ñi ngi gis affaire di yëngatu tey am na journal bu génn mu ne ñi ngi dem ci contrôle judiciaire pour Ousmane Sonko bu amee du ma bett ndaxte di wax naa ko bi Ousmane Sonko di doog a dugg prison mooy Ousmane Sonko xajul ci prison mënu fa yàgg kon grève de la fin bi. metti na mooy am na njariñ soxnaay Ousmane Sonko yi liñ def sukk du la tee yóbbaale say oom ñoom politique gu ñu de ndaxte bu doon les politique duñ ñaan Macky Sall duñ ñaan Marème Faye Sall mais la vérité des faits parce que bi usmaan Sonko di nekk ci seen kër nekk seen borom kër kenn mosul leen dégg ndax Ousmane Sonko du ku ñuy waxal waaye nag kaso ku ci ne wala nga tëdd feebar da lay lijjanti mais mënatoo lijjanti sa bopp. tey grève de la faim bu son ko tax na ñu bàyyi xel prisonniers yi ci kaso bi yépp parce que nguur gi échec bi mu échec ci mbiri Ousmane Sonko bi mu koy dugal prison ñi tas Pastef ban naan sax li jëm ci euh, liste électorale yi raje nañ ko ci ñoom danoo jàppoon ni buñ defee liñ def ba noppi nit ñi bu dawalee weer dañuy fàtte son ko kenn du ci waxati mais tey ji Ousmane Sonko c'est l'absent le plus présent ci seen politique bi demal ci journaux yi demal ci yéenekaay yi même ñi koy kokkali sax di dal ci njabootam tey ji buñ bëggee jaay journal wala ñu bëgg a doxloo seen seen ci Ousmane Sonko lañ koy def mais Ousmane Sonko suula guñ ko Ousmane Sonko suula guñ ko te day des ak gaa yi te parce que daa am loxo du mbiru nit mbiru yàlla la kon génn bi soxnaam yi génn ku ne yëkkati say kàddu rawatina perroquet boobu di sekku boobu nekk ca bitim réew lu ne mu wax ko te li mu wax dara du ci dégg ak bun fokkin bi nekk fii lu ne mu wax ko jëme ci ñoom mais balaa mu doon wax mënoon na xol boppam xol jaar-jaaram Sénégal nag dafa neex dangay am jaar-jaar bu ne def fi bu ne wax fi bu ne dem ba xajatoo fenn nga war a làmmiñ di wax soxna usmaan Sonko yi ñuy wax mais dafa war a gën a tax ñu naw Ousmane Sonko soxnaam doo leen gis na ca mbay de boo leen gisee ay jullit piir ngay gis. jullit pire mais ay ñunu yilif mbiri aji sar lu na kër ga yëngatu na mais ku xool ñaari soxna yi nun toogee nga xam ne kër ga yëngatuwul ñaar ñi ñaar ñu juboo la ñaar ñu ànd lan ay mag ak rakk lan duñu ay wujj ndaxte bu doon kenn moo génn wax ñu ne ana keneen ka te seen wax ji lu tax mu am solo mooy am na fi ab audio bu génnoon sooy bu indiwoon na ko victime du net man dama ne woon buñ wax mais benn jamono da nga naan nan wax parce que boo waxul ñu waxal la kon seen génn bi baax na parce que danoo tollu jamono avec les réseaux sociaux boo waxul ñu waxal la kon ñu ngi leen di ñaan ñu am xolu muñ gën a ñaanal seen borom kër gën a am taxawaay ak ñoom parce que ñoom acte bu ñu def mënoo ko analyser comme acte politique parce que bu doon Pastef neneen la ñuy waxee bu doon Yewwi neneen la ñuy waxee kon tey jii jaare ko ci ay soxnaam jaare ko ci njiitu réew mi jaare ci ku mënti doon parce que nguur gi ñu ko séqal lu tax mu doy waar lu tax may taxaw ci point bi xam naa ko du njëkkewul tey nguur gi la fi Abdoulaye Wade génn pale ñu koy jiiñ ay mokket capable noonu lu ne procureur Alioune Ndao fa mu toog ci mbiri Karim Wade lañ ko yónnee SMS dàqu rusuñu dara joomuñu dara Karim Wade mi biñ ko fi àtte soxnaam faatu ay takkaayu jabaram ju faatu lañ jël jal ko tribunal pour toroxal ko toroxal nit da jaral lu ne kii di Ibrahima abu Khalil ñu naan ko Bibo Bourgi nekkoon na seen loxo ci mbiri Karim Wade ci ab jaag lañ ko teg bi ñu koy indi tribunal mënu dara su perfusion ñu indi ko tey jii seen Habré bi ñu koy indi image boobu dafa frappé àdduna bi pourtant ab màgget la woon dem ba mënatul dara ñooñu bu dee sa borom kër dafa nekk ci seen loxo boo waree wax waxal boo waree jëf-jëfal boo waree dox doxal parce que ëllëg du añ du reer mais lu mat a sédd la te li ñuy bañ mooy waxuñu ko woon kon artu moo gën kon soxnaay Ousmane Sonko yi seen génn googu lu war la parce que nag bu doon ni ñu waroon a jug danoo jugoon ca bu njëkk ba parce que gis neen intellectuel yi jug gis nañ sëriñ si jug gis nañ ñi jug mais bu doon si saa jug mun naa ñoom duñ jug mais seen jëkkër dafa def weer ci kaso bi tëdd nekk hôpital mu mel na dara xewul ñu génn wax te ban waxee tey ji wax ji mi ngi def ay effet parce que ñu ñu noppi woon jug nañ ñu waxul woon wax nañ waaye tamit ñu ci waru bëgguloon artu ñu ngi ci artu ba bitim réew